papa ngay waaw la ngay développé doo ko wax waaye bu ñu si tollee askanu Sénégal danañ ko gis man sama plan du ko wax ñeneen di seen plan duñ ko dévoilé comme moom wax na ba ñëpp dégg ko on verra dañuy koje di menacer nit man fu ma dëkk ñëpp xam nañ ko fa may fréquenté ba léegi laay fréquenté nañ ma ko. non pourquoi nga koy personnaliser ci yow. dinaa ko personnaliser parce que dañu joxe ay tour audio yaa ngi dox audio yaa ngi daw man du ma nit kuy ragal ragaluma soxlawuma protection soxlawuma garde corps soxlawuma dara xam naa balaa ñu yóbbu sama bakkan moom bakkan yu bari dinaa leen rotal man Massaly j'assume ma loyauté mon engagement sans faille auprès du président Macky Sall te lu ma si góobee gar ko waaye ñi saaga nañ ko ne di saaga. waaye nañ jàpp ne benn bu ñu ma saaga delloo naa ko seen papa ak seen yaay fa la yem bi nga fi déggee coowal euh, Cour des comptes ci audit yi ñu defoon ci 1000 milliards.